tabaski doon xew-xew bu jullit yëpp di féete fii ci Sénégal ba tax na fii ci Dakar gis nañ ni xar yi bëri nañ lool ñu seeti woon ñenn ci jaaykat ya nekk ca Liberté 6 ngir ñu ànd ci ay leeral. dañ ci gis kenn koo xamante ni këram yar na fa lu mu dee ay 5 6 xar foo xamante ni bu njëkk ñoom defuñu ko woon ñu si woon yeew moo tax boo seetluwee xaru yar yi dañ fi bëri léegi macha allah te léegi dem nañu ba sénégalais yi lépp lu ñuy naan ay coggal entre gënalu leen xaru yar yee leen gënal donc euh, jeunes yi dugg nañ ci bu baax et c'est c'est bon signe parce que gëm naa ni loolu noonu c'est un avantage en plus day tax jeunes yi ñu liggéey bu ñu leen mayee doole ñu gën a mun a liggéey ba pare soqali réew mi. Alpha Sow di jaaykatu xar mi ngi ñuy xamal ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllum koppar ndax gisagul jëndkat. fi mu nekk nii ndox bi kaaw na jafe euh, n'est-ce pas même compte bi kaaw na jafe tuuti mais nag. gisuñu fi ay client air bi dañu doon fekk air bi weer bi booy demoon bu am deux trois dañoo doon am xaalis mais client yi léegi ñun suñu client client bu ñu ñëw rek boo client ñëwee rek boo waxee bi indi cent mille mu dem ma ne ko tey ma suba lay jënd gànnaaw suba lay jënd ah, instant yi moom ji suñu benn dërëm moom dañu toog rek di kont sotti ngooñ jënd ay ngooñ saak cinq mille jënd ripaas loolu rek la ñu nekkee fi wax dëgg yàlla gisuñu fi dara moom. ku ci nekk ci ñoom mi ngi ñuy xamal ni naam xar yi bëri nañ mais njëg li mënul yomb. léegi xar mënatul accessible par rapport bu njëkk kon c'est normal bu cher te léegi ñuy yar dafa bëri léegi man man yaa deux ans si ginnaaw amoon naa client yoo xam ne maa la doon jaay xar léegi dañu may woo ma pour ma jaay leen ay xar ça veut dire que ñoom dañuy yar comme man léegi xar de ce fait que mënatul yomb waaw dina bëri nii si bëtu nit yi mais mënatul yomb te te mais do xolé dépense de telle sorte que mënuñ def dépense yenn xari xar parce que da nga gis ku ñew fay 300000 cent am ñun mom kar des yoré mo ngay am nañ soixante am nañ quatre am nañ soixante ñun mom ba en général dañuy yéxa quand je dis dañuy yéxa parce que si ñu ba jëlee dëkk ba andi ko et puis prix wu kii bi day day day xont bi ak yoy noonu day xaw metti ci ñom donc ils prennent en considération aspect yoy noonu yépp par contre ki newoon fii nii jàppal ni ku yaroon xaram fii nii kooku jàpp na xaram téye ko xont ko yar ko lu yàgg te mom xolul lolu mom lepp luñ lu xar bi war da da ciy def day jënd repas jënd mbokk jënd lepp ba xari rafet moo tax gis nga ñu rafeté machallah wuté nak ko xamanté dafa jël xaram andiko bu ko andé xontu beeg yooyu noonu day xaw a métti moom parce xar boo xam ne na ko tàmmoon dàq ci biir àll bi bëgg ñëw rek yëpp camion andi ko fii day métti moo tax yenn saa yi dañuy tardé ñëw en plus tamit seen ay subvention ak yooyu noonu ñoom loolu la ñuy sukkandiku wala loolu la ñuy xaar pour mun a écouler seen ay produits. tabaski doon na feet bu àdduna wërngal képp di waajal ba tax na xar doon li ñëpp di jiitewoo waaye tamit njëg li